bismillahi rahmani mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Basiru Mbakke xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu sëriñ Abdoulatif Diène xalifa mam Cheikh Issa Diène daara alxuraan sëriñ Maxtaar Diène Touba daaru Mannaan tali bu bees ñoo am mbégte di yëgle tari alxuraan bi ndongo ya foo wattu alxuraan ren di amal juma benn fan ci weeru juillet 2022 programme bi bu ñu xëyee 10 heures jàngum xasida ak ay kuréel tisbaar ñu julli juma 15 heures ndongo yi tari ñu jox leen seen lijaasa ak ay buñ ca noppee ndongoy franco arabe mam awaloo ba ca dara ja te jiitu ci composition ya ñu jox leen ñoom it ay neexal bu ñu noppee sargal sëriñ daara yu góor yi ak yu jigéen yi jàngale alxuraan ci Touba ñenn ci ñoom ñu jox leen ay neexal ngir seen liggéey ci alxuraanul karim bés bangook muy tari alxuraan annuel bi ndongoy daara alxuraan sëriñ Maxtar Diène bu Touba Daaru Manaan tali bu bees di amal ajjuma benn fan ci weeru juillet 2022 ci teewaayu sëriñ daara ya ak waajuru ndongo ya ñu di ko yëgal mbooleem kilifa yi mbooleem jullit yi rawatina sëriñ daara yi ak waajuru ndongo yi ku ci bëgg ay leeral ak i tegtal wooteel ci 77 756 93 52 77 756 93 52 asalaamualeykum wa rahmatullah